allahuma callimna maa yanfacunaa wanfacnaa bimaa callamtanaa wa zidnaa cilman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu alhamdulillahi alladi axyaana bacda maa amaatanaa wa ilayhi nushur Rewmi FM 97.5 dellusiwaat nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy topp ci waxtaanu fajar wi ci waxtu wi ngeen di si ànd seen mbokku Ibrahima Drame mbokk yi ñu bokk sant yàlla buur bi tabaraka wa taala mi ñu may fanaanuk jàmm ñu di ko ñaan mu may ñu kendaluk jàmm ndax moo ne ud'uuni astajibu lakum moo ñaan leen ma ma may leen moone tamit la in shakartum la azidannakum bu ngeen sante xéewal yama leen di xéewalal ma yokku waaye ba léegi moo ñu ne wa in tauddu nicmatallahi la tuxsuha bu ngeen de doon bu dee da ngeen doon bu dee dangeen fi nekk naan yaay da ngeen di géema lim xéewalu yàlla yeleen yàlla xéewalal du ngeen ko musa dajal kon ñu ngi koy ñaan moom mi ñu kendaluk jàmm yan nañu yàlla may fanaanuk jàmm <clears throat> moom mi ñu may fanaanuk jàmm ñu ngi koy ñaan yan nañu may kendaluk jàmm amin ya rabbal alamin bokk na ci xéewal yooyu mu ñu xéewalal mooy xéewal dégg noddukat ba doon noddu waxtu su niw ci ginnaaw muy yëkkati baat di ñu wax ne waxtu ba ñu war a mën a jokkalante suñu borom waxtu ba jot na mu di wax wax boo xamante ne kàddu ju jullit ñu war a mën a bàyyi xel mu doon ay baat yoo xamante ne képp ku ko dégg danga nga war a jóg dem wuyu loolu yàlla woote loolu noddkat bi woote ne yàlla suñu borom tabaraka wa am na waxtu yoo xamante ne daf ñu ko yénkeewal ngir waxtu yooyu bu jotee ñu bàyyi lépp lu ñu nekkee ñu war a dem wuyu la nga xamante ne moom la noddukat bi daan noddu waxtu si néew ci ginnaaw ko defee <coughs> jullit yi daal daje ci niigu yàlla ci anam bi nga xamante ne anam yu jekk la kenn daal jiite mbooloo bi mu daldi leen yóbbu ci rencontation walla ci audience ba nga xamante ne mooy la noddukat bi daan <coughs> woote waxtu su néew ci ginnaaw ko defee ñuy ñaan yàlla suñu borom yañ si musa def ak yañu def ak ya ñuy waaj a def si yal na ko buur yàlla nangu amin ya rabbal alamin anaa di wax ne taqabbalallahu minna wa minkum saalihul amal yal nañu yàlla boole nangul suñu mbooleem jëf yiw amin ya rabbal alamin mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot xam ngeen ne fu ñu toll ni jamonoy sanatu diraasi yàlla ñu nekk bu dee mënees nañ ka wax ci nasaraan mooy année scolaire ñoo ngi jël xale yi tu tànk yi di leen yóbbu ci daara yi ñu ngi jël xale yi di leen yóbbu ci ekool yi ngir ñu xam xam-xam bi nga xamante ne lu jiitu buur yàlla tabaraka wa taala wax na ko yonentu bi ne ko xamal ne xam-xam de man yàlla maa ko jox dayo bi mel ba tax na maa bëgg kenn ku nekk na xam la ko war ci àddina kenn ku nekk na xam la ko war ci alaxira waaye xam-xamu àddina tamit na ko sàkku ci anam bi nga xamante ne ca lay xame lépp li nga xamante ne mooy ñoŋal dund àddina ba mu nekk di dundu waaye na géem a góor-góor lu bàyyi xel la nga xamante ne mooy dundu alaxira waaye nag boo fi nekkee tamit di géem a góor-góorlu di xam xam-xamu àddina walla xam-xamu alaxira ah yàlla nee na nag bul fatte sa wàll ci àddina moo tax wur yàlla tabaraka wa taala alquran ba mu wàccee ci suñu yonent bi di ar mustafa mustapha sallallahu alayhi boo demee xool ci alquran di nga fekk buur yàlla subhaanahu wa taala muy joxe tegtal bu mel ni la doon wax yonent bi ci jamono yonentu yàlla Muusa alayhi salaam mu am jëmm ja nekkoon ci jamono yonentu yàlla Muusa alayhi salaam ñi di ko duppee Qaaruun Qaaruuna bi bokkut ak frère Muusa nabiyullahi Haaruun yonentu yàlla Haaruun nabiyullahi Haaruun kooku frère yonentu yàlla Muusa la bi Qaaruuna la koo xamante ne moom da doon campagneal firawn ak xaaman ñoom it kooku mooy ki yore woon seeni finance mu nekk ku bew mu nekk ku fuy ci jamonoom waaye nag keroog ba ko buur yàlla tabaraka wa doon toroxal ngir na mu nekke woon ci askan bam doon dundu mu beew fuy rëy xamul boppam buur yàlla mi ko bind jox ko nomb tànk boobu muy ràngoo buur yàlla nar ko won lenn ci kàttanam ba tax na muy muy tëndikuloo xëytu yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam képp ku bëgg a mel ni xaaroon yàlla di la jox avertissement bu toll ni fa mu jaara xaaroon ba mu toroxal xaaroon ak nim ko toroxalee boo demee ci suratul fajr yàlla ngi wax ni inna rabbaka la bir mirsaad waaw yàlla ma duma woon les grandes puissances yi fi nekkoon nu ma leen dummee ak na leen yàlla toroxale yalla ne si saar boobu ci sutul fajir fa sabba alayhim rabbuka sawta azab inna rabbaka labir mirsad bur yàlla ne grand puissance yu ma toroxal fii ci àdduna si grand puissance yooyu noonu ma écrasé fii ci kaw suuf si nu ma leen écrasé mooy dama leen caw sama karawaasu mbugal karawaasu mbugal laa leen jël lu toll ni caw sa xiir man leen ko bàcc su ko defee grande puissance yooyu noonu daal di seey ñu daal écrasé wu ñu daldi di naxsaay seen trajectoire seen jaar-jaar kenn mënul la kaa woon lu dul mbëndum firawna boobu nekk ca dëkk ba ñu naan misra di Égypte ñu bàyyi fa yaxam su ko defee gaay di ko bàyyi xel ñu naan kii de moo fi nekkoon di diriger nguur bu toll ni moo fi doon def nii moo fi doon def naa comme alquran num ñu ko àndee firawna mu nekk ku beew ci kaw suuf si kon ñu gis ne buur yàlla tabaraka wa moo ne yonent ne nel samay jaam yi nañu fàggu xam-xam ba leen njariñ àllaaxira waaye bu ñu fàtte seeni walla ci àddina ba ñu nekk di dundu ba tax ne yàlla bëgg a joxe message bu toll ni melokaanu jëmm doomu aadama bu mel ni qaaruun yàlla ne inna qaaruuna kaana min qawmi muusa fa bagaa alayhi wa aataynaahu min alkunuuzi ma inna mafatihahu latanuu bi usbatin ulil quwatin yàlla ne inna qaaroon naka qaaroon kaana nekkoon na min qawmi muusa ci waa xeetu yonentu yàlla muusa qaaroon dafa bokk ci xeetu yonentu yàlla muusa ba léegi ñu ngi leen di fàttali ne xaaruuna bi bokkut ak fireeru Muusa Haaruun fireeru Muusa Haaruuna la tudd moom la ñuy tuddee suñu doom yi yonent yàlla Haaruun nabi la Haaruun bokkut ak xaaruuna bi xaaruuna la tudd xaaruuna ke haaruuna la tudd bokkuñu dañoo xaw a niroo tur bokkuñu xarf yi ñoo leen séparé waaw yàlla ne inna xaaruuna naka jëmm bu ñu naan qaaruuna na min qawmi muusa fa baga aley bokkoon na ci xeetu yonenti yàlla muusa waaye dafa beew dafa fuuy gis nga yàlla ne fa baga aley mu beew ci kaw muusa moo doon campagne di géema toroxal muusa ci alal ba ko yàlla jox yàlla ne alal boobu ma jox nag wa aataynaahu waaw ñun yàlla ñoo ko jox yàlla ne man yàlla maa jox xaaruuna minal kunuusi ay waxande ay mangata yi nga xamante ne maa im mafatihahu la tanuu usbatin ulul quwatin caabi yey ubbi waxande yooyu caabi yey ubbi magasin wu alal yooyu dañoo bëri dis gënn yàlla ne yenunti ne ña ko caabi yay ubbi magasin yooyu bu dee ay jëmm doomu aadama ñoo ko war a yëkkati ay waxambaane yu am kattan lañu waaw tey jii buñ ko doon melale moo bu dee caabi magasin alelu xaaruwu na dañ ko war a yëkkati ngir tijji magasin fii nag buñ caabi bu ñu defee ni suñu caabi yu ndaw yi la wax de yi ay caabi yi nga xamante ne mun naa toll nii Eh, épaule ba ci conculi wala mun naa tollu bara lëm waaw caabi yoo xamante ne mën naa tollu la dalee ci mbagg ba takku jara fa ñuy takk montor waaw caabi yooyu noonu la ñuy toll wala ñu gën ko ëpp ndax nit ñu njëkk ñi na leen bindee woon seen lépp nganda seen jumtukaay dañoo rëy seen jëmm yi dañoo rëy seen jëfandikukaay yi dañoo rëy amul dara lu tuuti seen jëfandikukaay ku weddi demal xool fa yonent yàlla Ibrahim taxawoon alayhi salaam ca makkatal mukarram keroog ba mu doon tabax kaabatul musharrafa foofu tànk yi des képp ku fa yurundu xool dinga gis ne ah bu dee kii mooy tànk yonent yàlla Ibrahim kon jëmm jooju ni mu war a toll waaw kañ nii lañuy xool yàlla ngi firndeel ne melokaanu nit yu njëkk ñi ba léegi bokk na ci suratul fajr mu ne allati lam yuxlaq misluha fil bilaad ñooñu ay mbindaafoon lañ yoo xamante ne yàlla nee na dootuma bind ñu mel ñooñu ci kaw suuf si wala seen dëkkuwaay kenn mënu tabax ci kaw suuf si kenn mënu ta inspiré wu kenn mënul te am xelaat ba war a mën a tabax seen tabax ya doon dëkkee ci kaw suuf si ku weddi demal xool trajectoire gaay yi fi jaaroon lañu tabaxoon seen musée yi ak seen dëkkuwaay demal xool waaw si ngay xam ne dëgg dëgg dëgg am na xeet yu fi jaar ñoo xamante ne na nañu delloo yàlla kàttan bi rekk waaw yàlla ne qaaruuna man yàlla maa ko yenkeewal mu doon borom alal ànd ak loolu mu bew ca ma kaw mu beew ci kaw sama yonent ba ma yónni ngir mu jëlee leen ci lindimaay yóbbu leen ci leeraay ma daldi ko jox ay magasin yoo xamante ne lafa nekk ci alal caabi ya koy ubbi buñ ko doon yëkkati ay jëmm yu am doole lañuy doon te ñu duñu doon benn du ñu doon ñaar du ñu doon ñett boo koy lim daal danga mattali fukk usba ci langaasu alquran moy lu ëpp juróom-ñett muy jëmale fukk waaw la yonenti yàlla yaquba alayhi salaam wax ñu ne ko bul am dara li ngay inquiétude suñu diggante suñu doom baay di yusuf ndax wa nahnu usbatun ñun takku nañu macha allah ëpp nañu juróom di dem juróom benn di utali fukk kon suñu doomu baay bi di yuusuf ñu toog di ko xool di ko seetaan muy loro loolu moom sa xel na dal ci loolu dinañ ko sécuriser dinañ ko aar wattu ko ndekete yi yaay ab pexe lañ doon lal kon nga déggee ci maanaa os ba tàmbali na lu jóge ko ci juróom di utali juróom benn juróom ñaar ba keroog ngay àgg fukk ñu ne noonu la ñuy xamee baatu usba moo tax yàlla ne ña war a yëkkati caabi magasin wu Qaaruun ay borom doole la ñuy doon borom ñi am kattan la ñuy doon waaw te duñu doon kenn walla ñaar walla ñett booy xayma boo doon géema lim ña wër caabi magasin wu xaaroon di konte ay waxambaane yu am kattan bi nga matali fukk dix personnes keroog yàlla ne yonent bi ne id qaala lahu qawmuhu keroog ba ko xeetam doon laaye biir ñu ne ko laa tafrax bul big laa tafrax bul fuuy laa tafrax bul nganda ngandalu laa tafrax bul beewu laa tafrax bul funkil sa lex jëmale ko ci ñi nga tane laa tafrax bul beew xamal ne inna allaha naka yàlla laa yuhibbu déet muy sopp alfarihin kuy beew kuy fuy fuylu kuy won nit ñi dayoom kuy won nit ñi melokaanaam wala juddoom wala am amam wala xam-xamam yàlla bëggul kuy ngand ngandalu ci kaw nit ñi ci li yàlla jox ci ngéneel te joxuñu ko joxu ko ci kaw joxu ko ñeneen ñi nga xamante ni si ñooñu ngay ngand ngandalu yàlla nee na bëgguma kuy ngand ngandalu li ni mel waaye yàlla buur bi tabaraka mu ngi nii bi léegi di wax yonent bi ne mu ne ko waxal sama jaam yi ne li ma leen wax ne buñ ko def bugguma ko ngal la nañ ko sore waaye nag jox naa leen wabtaghi fii ma aataaka allahu daarul axira na nga géem a gëstu na nga a xam na nga géem a jàng na nga géem a dem école yi na nga géem a dem ci daara yi na nga géem a gëstu xam-xamu diine nanga nga géem a xam xam-xam alquran na nga géem a xam lépp li nga xamante ne dalay leeralal yoon balay niital pour nga teg fa sa tànk mu war laa yóbbu ci këru alaaxira waaw waaye nag yàlla ne bu fa nekk rek di sëgg ci foofu rekk bañ a gistu feneen yàlla ne am na beneen yoon bu mala la de moo ne nag wala tansa nasibaka min ad-dunya bul fàtte sa walla ci àddina de àddina bi nga nikk di dund am na lu ma la fi jagleel bu ko fàtte de waaw gis nga fi mbokk yi bu ñu taxawee yàlla dalaa ngoyloo yàlla dalaa jàppaloo yàlla dalaa tiyeloo ne la tiil wabtaghi la la yàlla wax wabtaxi nanga nga ngoy wabtaxi nanga nga téye nanga na nga sóobu wabtaxi na nga xar sa tànku tubéy nanga takk sa ndigg laxasaayo wabtaxi na nga jël sa doom yóbbu ko ci daara yi alquran wabtaxi na nga jël sa doom yóbbu ko ci daara fa muy jàngee lépp la nga xamante ni diine dakakaa war a mën a jàngal moo tax mu ne ko wabtaxi na nga ngoy fii maa ci la nga xamante ne aataaka allahu yalla jox na la ko daaral axirati ngir nga waroon mën a faggu ngir mànde yàlla keroog bés pénc na julli nanga woor nanga dem aji màkk na nga saraxe na joxe azaka na nga jokk mbokk na nga nekk kuy diglu lu baax waaye nanga nga nekk kuy tere lépp lu ñaaw nanga nga yërëm ñi nga tane nanga jàngal nit ñi nanga woote nit ñi jëmale leen ci la leen di njëriñ keroog bés pénc waaye nag wala tansa nasiibaka mina duniya yàlla ne bu fi nekk di dumóoyu sa wàll ci àddina de déedéet lépp li sa wàll ci àddina na nga ko fàggu na ko nekkee na tabax kër bu rafet dëkkee na ngay lekk lu tey dagan na jël ci soxna yi na nga am waruwaay yu rafet ni na nga taaral sa jëmm na nga doon ku bëgg sa bopp na nga doon kuy bëgg ci àddina bi waaw yàlla ne wala tansa ko gis nga yàlla dalaa bañ a fàtteloo sa wàll ci àddina nee na la bul fàtte sa wàll ci àddina de waaw waaye ànd ak loolu yépp lam la ne nanka ngoy mu niital la yoon balay jëmmale ci ngir màndi yàlla ëllëg bés penc yàlla gërëm la tàbbil la këru xéewal ba di arjanna ak lam la wax ne bul fàtte sa wàll ci dundu àddina ba nga nekk loolu yépp mu ne la nag kay ma jox la conclusion bi nga xamante ne moom laa bëgg nga nekkee ko waaw da nga ngoy yoon balay xàllil jëmmali la ci këru alaaxira mooy xeetu jaamu yàlla yi waaye nag walla tansa nasibaka min ad-dunya bul fàtte sa wàll ci dundu àddina bi lu mel nii la nga war a mën a banneexoo ci dundu àddina bi yàlla ne bu ko fàtte na ci nekk na ci dem bi jeex waaw na ko dund waaw na nga dund na waaye nag ah yàlla ne wa ahsin nanga rafeta booy topp yàlla ci lam la ne topp yoon balay yóbbu ci daaral aaxira wa ahsin nanka rafetal lalla yàlla wax ne wala tansi nasibaka min ad-dunya bul fàtte sa wàll ci dundu àddina bi ah sa wàll woowu ci dundu àddina wi nga nekk di dundu noo koy jëfandikoo wa ahsin nanka rafetal wa ahsin nanga rafetal kama ahsana allahu ilayka comme na yàlla rafetalee jëmmale ko ci sa jëmm ji kon yow nanga rafetal yoon ba nga nar tegu mu di la yóbbu ci daarul aaxira nanga rafetal ci lala la yàlla ne loolu mooy sa wàll ci àddina gis nga yàlla rafetalal nala ñaari yoon yam la xàllil ne la nanga nga ngoy bii mu la yóbbu këru alaaxira waaye fii nag bu ko fàttee ndax fii nga war a dund pour liggéey yoon war a war a mën a yóbbu daarul aaxira buur yàlla ne nag hmm, ndegem àdduna fii nga nekk di fi dund sa tansa nasibaka min ad-dunya bul fàtte sa walla fii de na lekk na nga naan na nga war waru waaye na nga dikk fu baax na nga takk soxna yi na nga am ay doom ila axirihi waaye nag ànd ak loolu yëpp wa ahsin na nga rafetal wallahi yàlla rafetal na jëmale ko ci kaw doomu aadama bi de yàlla mooy ki rafetal jëmale ko ci doomu aadama bi moo tax yàlla ne kon yowit na rafetal wa ahsin na rafetal kama ahsana allahu ilayk comme ni yàlla rafetalee jëmale ko ci sa jëmm ji waaw yàlla nee na nag boo defee li ma la wax nii mooy la ma la digal ne nanga ko melo léegi nga ñëw déglu la ma la war a jox ngir tere yi mu ne la wala tattabi wala tabi il fasaada wala tabri il fasaada bul nekk ci ñuy campagnal yàqute fil ard ci kaw suuf si wala tabri fasaada bu fi nekk di promouvoir ñay yàq ci kaw suuf si yàq nag barina na façon autorité yi di bàyyi lay nasaxal xelu waxambaane yeeg xelu jeunes yi muy dugg ci biir réew mi jeunes yi di ko jëfandikoo kon ñu ngi campagnal yàqkat ñi ci kaw suuf si saa yuñ ko défendre bañ ko autoriser ngir mu dugg si rek ëpp mooy ne nekkuñu di yàq kat ñi kon avertissement bi ñëpp ci bokk wala tabiril fasada fil ard bul nangoo bokk ñuy promouvoir ñuy yàq yàqkat ñi ci kaw suuf si muy autorité bi mooy boroom kër gi mooy chef de bi mooy imam bi mooy kilifa ba nekk béréb ba nga xamante ne am na ñu fa jiite fekk nekkul di yàq yàqkat ñi fekk nekkul di campagnal ña war yàq ci kaw suuf si nekkul avertissement ba yàlla tere nekkul ci kuréel woowu waaye fekk nekk na di promouvoir di bàyyi gaañi ñuy andi seen ñoll ñuy andi la tax xale yi di taqale ko seeni sago ak lim ci mën a am ci xeetu alal kon ñu ngi campagnal yàqkat ñi ci kaw suuf si te yàlla daa tere loolu moo tax mu ne yow autorité bi yow chef de quartier bi yow maire yow député bi yow ku munti doon bu leen bokk ci ñuy promouvoir yàq ci kaw suuf si wala tabgil fasaada fil ard la yàlla wa bu leen fi nekk di géem a yàq yàqkat ñi ci kaw suuf si bu leen nangu yàqkat ñi ñëw tegal leen seen milliard ngir ngeen nangoo promouvoir la tax ñu war a yàq jigéen ñi la tax ñu war a yàq jeunesse yi la tax ñu war a yàq nature bi lank leen ba ci suuf seen wërsëg yàllaa ko yore képp ko yore ay am narkaa joxe ngir yàq natiru doomu aadama walla ngir yàq xelu doomu aadama ak jumtuwaay bam la nar tegal ak xaalis ba mu nar a teg ci jumtuwaay woowu yàlla ne wala tabgil fasaada fil ard suuf si yàllaa ko moom de ñu koy dundee yàllaa leen moom kon bu la yàlla sama suuf si bëgguma kenn ku fi nekk di yàq bëgguma kenn ku fi nekk di campagnal di promouvoir kat ñi bu ci nangoo bokk wallahi boo ci bokkee ah ëllëg bés pénc la tax nga bokk ci yàqkat ñi di nga ko rëccu de te xaaral yàlla ma dem dellu defaraar la ma yàqoon amul dem dellu si amul de ña dem demoon kenn ñëwul waaw sama maam bu demoon ba léegi ñëwagut yal na ko yàlla yërëm ilaa axiri gisuñu kenn ku dem fa yàlla après nga del si waat déedéet ku dem dem na rek kooku def ñuy xaar ba keroog ñu di ko fekk yal na yéex yàlla ne nag wala tabxil fasaada fil ard bu leen fi nekk di campagnal yàqkat ñi te bu leen doon kay yàq ci ñay yàq ci suuf ñi bu leen doon ñay yàq ci suuf si kon ñu nit ñu ngi wax suñu njiit ñeeg ña ñuy waaja fal nga bu kenn nekk fi di promouvoir yàq ci suñu territoire Sénégal yàlla ne nag hmm, inna allaha xam leen ne naka yàlla de laa yuhibbul mufsidin bugul kay yàq bugul ñay yàq bugul njiit yay yàq bugul député yay yàq bugul ministre yay yàq bugul borom kër yay yàq bugul ustaas bay yàq bugul imam bay yàq yàlla nee na bugguma kenn kuy yàq yàq moom bokkul ci sama bëgg-bëgg man yàlla leer na de inna allaha xam leen ne yàlla bu dee sax daf ne ne wala tabxil fasaada fil ard bu leen nekk di yàq ci kaw suuf si bu leen nekk di campagnal yàqkat ñi ci suuf si wallahi ñu mën a wax ne yàlla duñ ko def waaye mu dem ak ñun ba mu ñu ne inna allaha xam leen ne naka yàlla de laa yuhibbu déet muy bëggu te du ko musa bëggu te musu koo bëgg sax ñan ñan la yàlla bëggut ñan la yàlla dut bëgg ñan na yàlla musut bëgg mooy al yàq kat ñi nga xamante ne dañuy nekk di yàq rekk di yàq xel ñi di yàq xol ñi di yàq dégg-dégg yi di transformer mbir yi di ko jële nu mu nekkee soppi ko yóbbu ko feneen fu mu nekkul xeeti format wu yàq la kon mbokk yi inna allaha yàlla nee na naka man yàlla laa yuhibbul mufsidin déet may bëgg ñay yàq déet man yàlla may bëgg yàqkat ñi bëgguma leen te duma leen bëgg te duma leen mës a bëgg ku yàlla bëggut nag Hmm, kooku leneen nga mbokk yi waxtaan bi jeexut dañoo yegg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi ñu war a jébbal béréb bi ñay joxe xibaar ci nasaraan